pour cinq questions soo trouvé cinq questions yëpp nga ne la cinq mille francs man la ñuy nen bi sama ginaaru yaay bu mag en français nen bi sama ginaaru yaay bu mag moo ko en français Vous me posez le poulet c'est le poulet de ma mère qui l'a pondu. dégg nga français man français mos tuuti rek. cinq questions bëriwut boo trouvé cinq questions yi. waaw cinq mille wala boo trouvé quatre sax yaa cinq mille. fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg nu ñu koy waxee fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg nu ñu koy waxee dix xanaa guddi dix nuit guddi barke lu ma neex laa wax quoi. lu ma neex defal lu ma neex defal lu ma neex ma defal. Euh, daa compliqué nag de. non si si si. Euh, essayer de voir peut-être mën nga coxataan mën nga def la neex. coxataan essayer de voir. un truc boo xam ne ça peut me faire. laaj ma la ca soit baa su ma la coxataane doon naa. ça dépend ça dépend. ñaan ma ko. ok ay daw de. dama ne ma woon ak yéen amee ma woon. damay bañ nga gaañu quoi. mu ne Dado. daa daa compliqué nag. ñaata seconde. c'est bon. bon. ah waaw. dafa dem ba yow. waaw daa may la ku dee sa yaay juraat mi ngi koy wax. toute personne qui meurt. ta mère. metti na nag ah, de. nga amee expression fra expression wolof yu métti nga jox de. mais mais mais mais loolu la da nga war a dégg wolof normalement bu déggee wolof après ça sera pas compliqué normalement. waaw mais c'est de cinq mille francs mon frère. waaw mais cinq mille francs nag tamit. il s'agit de cinq mille francs mon ¿Ah? frère. kéwél du tëb doom ji bët nu ñu koy waxee ci français. kéwél du tëb doom ji ségaloo problème mooy déglu wala. day gaañu wala. non mais xalaat. ci bëri ci bëri ci bëri. mais déggoo wala ni man da ngay gaañu wala. yow noppi dégg. ay ñii rek maa ngi seeral kiwel tëb doom ci bëtt. kiwel moom mooy yéen. du doom ci bëtt. yéen moom mu ba da ngay gaañ. non ma comprendre ma de non comprendre ma baax na. da ngay gaañ. non baax na comprendre ma. da ngay gaañ merci beaucoup. non ma nga bàyyi film baax na. question question. mais loo mën a waroon defaral nag. yow déjà sa kanam gi man su ma la xoolee damay retard. est-ce que le temps de cinq minutes. question rek. est-ce que le temps de cinq minutes. question question. barki yàlla est-ce que le temps de cinq minutes. dafa cinq minutes nag xaaral question. non non boo ngeen doyee loolu pourtant c'est plus simple ah. Allez, comme toi, maintenant, maintenant, maintenant, commence, hein. Moi, de remarque. Mais on m'a la chance. Ouais. Vas-y, c'est quand tu veux, mon frère. Euh, 35 secondes. Ouais, ramène au waay, fen kat la, quoi, day fen. Bachir ah, du Bachir, eh, Day fen, fen rek lay def. laska. Ah, laska. Tamu, tamu, tamu, tamu man amul rasa. Non, non, rasa de. Ah, ah rasa la. Mu wax, mu ne, léegi, may par fen yi, quoi, léegi. maanaam kon ne euh, Pétain moo joué cent quatre-vingt-dix match mu fexe ba qualifié Coupe d'Afrique moom mooy échauffement qualifié mondial. yaa ngi ko braak Pétain tey Afrique bi naan ba mu ñëw lépp national dugal sama poche daa leen ko jiitee fii maanaam ma marché portable doon sama cent cinquante jënd téléphone yaa ma marché téléphone yi ma tontu leen di génn dañu ma ne ma ne ko texeet ñu laa ma ne ko ci moto la ma iPhone dana iPhone da naas ba xaar fekk man moo koy faral catastrophe ñu ne ma waaye ma ne ko laxal 30 secondes la jeex. oh bu yàgg sax de. <laughs> non la mu fën neex la mu fën neex. <laughs> ba barke alxuraan dégg naturellement. <laughs> malheureusement. Oh. yaa ngi dégg. la préparation ku métti yëpp jaru cinq questions tourné jàkkaarloo caméra bi. cinq questions. waaw. Ah. soo ko trouvé. ah ñas. Ah, ndeysaan. boo trouvé cinq questions yi may laaj yaa moom cinq minutes. man la ñuy waxee ku dee sa yaay juraat ci français. ku dee. sa ay juraat. xaw ma ko xaw ma ko de. ku dee sa yaay juraat ku dee sa yaay juraat. ku dee sa yaay juraat ku jur. waaw xaw ma de. fukki bëkki guddi fukki bëkki bëccëg. fukki guddi bëgg fukki bëccëg bëccëg. di ko waxee ci français. di ko waxee ci français. saa da ku ñëwaat. mu ne. ku dégg nga français. man mos tuuti cinq questions bëriwut. boo trouvé cinq questions yi. waaw. cinq mille wala boo trouvé quatre sax yaa moom cinq mille. fukki fukki guddi fukki fukki bëccëg. nu ñu koy waxee fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg ni ko waxee ci français guddi bëccëg. Hmm. dix xanaa dix nuits. dix dix dix nuits <laughs> guddi. dix nuits guddi. barki alxuraan da may rey. mais daa mel ne waaye ma gis TikTok quoi waaye fenkat la quoi day fen. Bachir la xanaa. ah non du Bachir rek benn waay la day fen fen rek lay def. du Laska ah Laska. te mu te mu te mu sew nii rek. mbaa du man amul ay rasa. non non amul rasa de. ah, ah rasa la mu wax ah mu ne léegi damay commencé quoi par fen yi quoi léegi. waa dafa ne euh, Pétain moo joué cent quatre-vingt-dix match mu fexe ba qualifié coupe d'Afrique am na échauffement qualifié mondial. yaa ngi ko braak Pétain tey heure bii Afrique bi naan ba mu ñëw lépp national bi 200 poches daa leen koy jiitee fii. maanaam marché portable ñoom sama 150 jënd téléphone te ama marché téléphone yi ma tontu leen ñu génn dañu ma ne techno ma ne ko texeet ñu ne ma moto laa ma ne ko ci moto la génne ñu ne ma iPhone dana iPhone da naas ba xar sëñ Kamal moo koy faral. catastrophe ñu ne ma waaye ma ne ko lax leen wax comme man la moo ma dese. 30 secondes lay jeex. oh yàlla bu yàgg sax de. <laughs> non la mu gën a neex la mu gën a neex. ba barke alxuraan dégg ko naturellement. <laughs> malheureusement. Oh.